àdduna yàqu na yaxeet ku yabu wut barab bu weet nekk fa tey jaamoo ka weet te sori kuy moya kafo àdduna yàqu na te kët kilifa yee ko yàq kët du seenu nit ko yàq kët kilifa yee fii dox di fo ku yabuub sa kër rekk te daw nelaw yu far nelaw a gën di lor aw nit a kay loroo ku yabuub sa buntu kër rekk te daw nelaw yu far nelaw a gën génn di lor aw nit a kay loroo kafo ay am na nag ndegam nelaw mu bon milee fii taxaraw xamal ni kon kenn dootu nelaw gënul lëf ndare fo waajuy nelaw gënul ku dul waajuy foyee ka mooy ndigal nelaw du tax ñu xëy lafal ni wël ko tey mooy ku fo kilifa day mooy ku fo ba noppi tey tere ku fo bu mën la tee nag kenn fo na teye boppam bañ fo sawara bég na mbég mu rëy ngir mooy yu rëy yi dee fi mooy ngir xam na xel ni ñi mooy lay dunde ëllëg ak ñi fo foo toll gis góor ak jigéen di jaxasoo kay dox di been sunas yonen bi akateen rekk di xalxalee fo aljana yàlla na bég sëriñ bi yàlla na bég yonen ba yàlla na bég ci nun ak mi aaye fo sëriñ bi wax na bind na def na nu gis te digle na lii moo ko warkat wàcc na musula mooy musula fo waxama gën waxi ku ne jëfama gën jëfi ku ne waayama gën waayi ku ne waayam ja dëgg nag du fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ka nekk fa poma bul gëm ni koo ka waayama waayam ja dëgg dootu fo foo gis ku ne fi waayama muy foo ka mooy xumaagama foo gis ku ne fi waaya weddil njegam gis nga mu fo wurus bu yàggee am xumaag xaalis bu yàggee am xumaag lépp lu yàgg am xumaag xumaag a fi ruus ban ba wurus wu sell la waayam dërëm bu sotti la te ku amub rax yëru ab raxa bon day taxa fo